salaatu llazi fi kulli saarin wa fi safar amaani ala maahin maal mabsa wa safar Cheikh Ahmadou Bamba Adi ne te livre pas au désordre et en l'investigation en de dévoiler yu regarde une chose cachée Serigne Touba nee na bul dugg ci lu la leerul bul di gëstu ngir wàññi ayibi jàmbur respecte, la grande personne, même si elle te paraît vulgaire et méprisable. Sëriñ Tuubaa nee na joxal cër ki la mag donte dala indiru ku doyadi wala ku ñàkk solo. salaatul lazi fi kulli lisanin wa fi safar والحبس والسفر